kaa bu yàgg bi dañ ne woon duñ ci waxati parce que wax nañ ci liñ ci waroon wax yépp ba mbir ya xewee depuis ñaari at waxoon nañ ci saas defoon nañ ci saas liñ ci waroon def wax nañ ci ginnaaw gi liñ ci def yépp kon léegi loolu dañ koy bàyyee comme mu ngi ci yoon dañ koy bàyyeek loolu refus de paternité mooy jur bañ a reconnaître bañ a bañ a wala seq ak jigéen mu ne la yooyu moom moo ju waaw joxoñ kii ne moo jur doon kooku ne du man loolu li ñu ngi ci wax di ki dox yàgg na bañ ci commencé di wax di ki dox association de femmes yépp ñu ngi ciy wax di ci dox mais yàgg na ndax loolu euh, blocage bi mooy suñu suñu suñu loi dans le code de la famille article bi ki rek dafa ne autorisé wul kenn nga nga ñu force diw na ko yaay jur doom doom ndeyam rek moo ko moom waaye loolu gis nañ lu mu yàq te ñu ngi siy dox ñu ngi si wax fépp fu ñu ko war a jooj ñu ngi koy jooytu ñu ngi ci def ay sensibilisation pour que nguur bi mooy autorité nationale yi nga xam ne ñoom ñoo am pouvoir réviser suñuy loi ak suñuy texte xoolaat disposition code de la famille boobu pour permettre quand même ku jur doom nga assumer ses responsabilités parce que li ñu dund nii tamit xaw na métti si jigéen ñi. seq ak jigéen bàyyi ko ak doomam moom mu dem di yow nga dem topp continuer sa dund moom mu nekk di di di di di toltolan ak doom boo xam ne duñ ko ne kii mooy sa papa loolu tamit doy na waar donc ñu duñu duñu tay duñu duñu yokki ci di sensibiliser di ko jooytu fi ñu ko war a jooytu pour que disposition boobu ñu daal di koy seetaat seet naka lañ koy aménager waat donc loolu la ñu ci ci cas de refus de paternité yi li ci des ki laajte lan mooy dut ndax xam nañ luy dut mooy décision bi ñu bi ñu rendre fan yi ñun mënuñu toog fii di définir di wax ne dut lii ak lii mooy dut ñi ko wax te nga xam ne ñoom ñoo am droit ñoom ñoo am pouvoir mën-mënu sañ-sañu wax ne dañu dute ñooñ peut-être la ñu war a poser question boobu ñun daal li ñu xam mooy décision bi nga xam ne dañ ko basé si dut metti nañu sonal nañu joytu nañ ko moo tax ñu wax fii tey bi ñu wax ni loolu daal la ñu amoon lu ñu ci mën a ton en tant qu'organisation euh, en tant que militante en tant qu'organisation de femmes. Mm-hmm. en tant qu'organisation de euh, féministe aussi. Mm-hmm. dafay yoon ñu wan sénégalais yi ne euh, ci suñu wàllu liggéey ak kum ci munti nekk amuñu indignation sélective ma bëgg ko rappeler pour ki poser question bi pour le cas bi nga xam ne présidente dafa ne cas ancien la. waaye xam nga ñun xale yi dañu xaw a doy waar moo tax ñun dañuy euh, dañuy peut-être euh, comme li may def ni je vais me permettre de citer le cas je vais pas l'appeler cas ancien parce que jarul euh, nëbbatu c'est le cas Adji Sarr Ousmane Sonko un cas que je cite nommément parce que organisation de fem yëpp war nañ mën a nekk à l'aise pour quel que soit cas bu ñu war ci mën a traiter ñu taxaw sur les principes de droit principe de droit yooyu nag moom mooy guider bépp engagement mais également bépp intervention euh, mënoo taxaw di wax organisation yi lan la ñuy liggéeyee je le répète tout le du man may wax AGS nu muy liggéeyee du man maay wax keneen ak keneen mu muy liggéeyee Et vous savez, une chose est importante. Alhamdulillah, on a l'occasion aujourd'hui de revenir sur certains principes. C'est la question de la confidentialité. Qu'est-ce que vous en faites Dans une dans la gestion d'un dossier de violence sexuelle. C'est très important. C'est-à-dire que Adiès peut travailler en toute confidentialité, sans pour autant être obligé, par rapport à un cas spécifique, de se positionner, euh, voilà, on a une liberté d'être Nous, en tant que en tant qu'organisation féministe, en tant que militante féministe, on a aussi effectivement le droit de passer un rappel. On a le droit de se positionner et de dire, en tout cas en restant sur les principes, de parler de l'ensemble des cas ak ku mu munti impliqué par rapport au violences sexuelles pour dire que ragaluñu loolu gis nga Adji Sarr ak Adama mi di doomu njira ñoo yam ci ñun ci wàllu droit amuñu luñ ciy dëbbatu amuñu lu ñu ciy xool parti pris ku nekk nag organisation yaay xool na ngay liggéeyee waaye accès à la justice bi ma doon bi may wax ci kaaw euh, madame Dira bi accès à la justice boobu laay wax ci bépp cas y compris le cas Adji Sarr parce que Adji Sarr ak keneen ak keneen fépp fu jigéen taxaw Sénégal nga daw jug sa ci AJS wala organisation de femmes pour ñu jàppale la il est de notre devoir premier de t'accompagner xaw ma nag Adji Sarr lu mu ànd ak AGS li ma leer ba leer mooy que ne am na organisation yoo xam ne parce que seen professionnalisme confidentialité la ñuy liggéey et des fois aussi il faut pas que les gens euh, choisissent des combats pour nous les organisations et les militantes sont euh, ont le droit de choisir leur propre combat et de combattre comme ils veulent ça c'est un waaw dama organisation de famille am nañu droit choisir combat ba leen neex ñu combattre ko ak suivant procédure ba ñu bëgg damaa bëgg leeral rek pour wax la kaawu Adji Sarr Ousmane Sonko ak kaawu euh, Adama Thiarami ak euh, Sitor Ndour ñun en tant que en tant qu'organisation féministe et militante benn la ci ñun accès à la justice fa la ñuy taxaw principe la protection des droits des femmes fa la ñuy taxaw principe la donc loolu c'est important donc tey mën na cas Sitor Ndour sax nous réconforte ci suñu position bi ñu mës a nekk pour wax ne qu'est-ce que la justice fait en matière d'accès des femmes à cette justice même falaa koy yemale pour wax ne amuñu lu ñu ci deqal bi lépp benn na ci ñun. Euh, loolu laay wax ne leen euh, c'est pas du ni ngeen ko gisee rek noonu lay dem te di ngeen am loo xam ne di ngeen ko wuutee te nit ñi xam ko AJS bu nekkee ci benn dossier en toute confidentialité li tax tey madame Ndeye Fatou Touré xëy na peut-être ñëwul loolu ci la bokk. parce que AJS organisation bu nekk depuis 1974 donc am na foo xam ne fa lay teg liggéeyam yaa ngi dégg donc ñi nga xam ne ñoo ci waroon génn génn nañ te lañu ñu ca waxoon depuis le début teg ko ci principe de droit ba tey ci loolu la ñu nekk ndax réew mi ñëpp ko bokk kenn moom que beaucoup. ak fu nga xam ne rek am na violation des droits wala soutenir sax une femme bu nga xamante ni si des euh, les droits humains des femmes. ni mu ko waxee nag moo di ne amuñ ci nga xam ne aussi nag noonu lañ koy defee ak na nga xam ni noonu na war a jaar nag professionnellement les organisations de femmes sont très professionnelles. Euh, beneen bi nga xamante ni si moo koy mooy dut bi dut il faut que ñu wax ñu lii dut bi fan la nekk xanaa dut bi nga ne fii la féete ak fii booy taxaw di jiixi jaaxa wala ngay am dut. di nga ne dut bi kat fii laa ko tëral wala ndax doon koo tëral ci mun euh, am pièce ba nga xamante ni pièce justificative la ndax doon koo ci nga xam ne lii woo na la ni lii amul ndax doon koo tëral ci ban fànn ko jiixi jaaxaar bénéfice bi dut euh, loolu dafa tàgg lool loolu moo tax nag daañu ko seet daañu ko topp parce que loi bi moom dafa amul dafa clair dafa amul fu mu lay permettre yenn yi loolu moo tax ñu ni la euh, prescription euh, bi dafa gën a longue durée de détention provisoire bi dafa am amul limite pour seet ak diir jàpp ko bu baax xool ko bu baax a baax. beneen bi question bi nga xam ne posé nañu ko léegi moo di est-ce que la loi protège les délinquants sexuels ñu ngi koy protéger naka waxal ne moo tax ñu rappelé bu baax loi application kay la ñuy wax ak naka lañ koy appliquer ak comment l'appliquer ba pare ndax dénoncé nañ ko te ba pare ndax am na ay témoignages yu nga xam ne ci permettant à la justice de se déterminer mais li wóor ba wóor moo ne loi bi leer na nañ wax nañ ko te wax nañ ko sanction yi ak nga xam ne ci noonu la nekkee ba enclenchement pour le cas de Adama ci mineur nga xamante ni moom waroo fa taxaw sax naan nangam nangam euh, mineur moom dafa euh, en fait comme ni ñu koy waxee doomu procureur la sax daal loolu la loolu la loolu la ñuy am. waaw doomu procureur bi nga xamante ni si nag moom moo ci tegu mooy euh, dernière affaire bi moo di l' accès à la justice par les femmes gis nga accès à la par les groupes vulnérables l' accès à la justice pose problème naka la pose problème on a énormément de problèmes gis nga boo gisee cas yi léeg-léeg mu ngi. accès à la justice bi métti na trop et nous faisons de notre mieux AJS dafay accompagner les organisations de accompagnent pour que euh, pour un la justice des victimes de violence surtout des victimes de violence sexuelle te loolu nekk xam na ni nekk ak bu baax a baax mais ce combat là c'est un combat pour nous tous combat bu kenn du sélectionné kenn du ne combat wala combat ma faa en fonction du sensationnel ak la nga bëgg ñu combattre déedéet dañu koy teg nous sommes également des organisations très professionnelles dans ce sens-là kooku moom moo tax ko en tout pour le cas de Adama daal ñu ngi def euh, ñu ngi waxaat ne nañu dellu ci loi bi dañu demandons kooku moom dañu koy dem dañuy demander l'application effective de la loi Euh, baneen bi étichètement a été promulgué en tant que président de la république boobu ñoo ngi taxaw nii nii lañ ko ko présenté kii yëpp mi ngi euh, baneen ba moo ne euh, l' accès à la justice par les femmes comme permettre l' accès la justice amélioration de l'aide pour que bu ñu demee di dem ñu mën a accéder parce que ku nekk xam nga ni justice bi am na buuta am na aussi yàgg na te dañ koy topp ba nga xam ne foofu nag la ñun suñu accompagnement ak suñu appui nekk ci les victimes de violence ñu ngi kii aussi nag euh, gis nañu aussi on dénonce pas dénoncer mais on condamne dañ am benn euh, une femme bu nga xamante ni si victime euh, bon bu ko ñu condamné enceinte. c'est femme. non euh, ah, euh, dañ koo kii. c'est-à-dire dañ bëggoon a. dañ ci bëggoon a am kii. a dénoncé aussi hein. Euh, effectivement pour que. une femme ne soit pas détenue quand elle est allaitante. ou quand elle est enceinte. exactement. loolu moom tamit loolu je parle sous le coup de la loi. ak li nga xamante les droits des femmes te ci yooyu la ñuy kii. on a une kenn waxu ne une femme du nekk euh, du du du du nekk. Euh, prison euh, accusée wala coupable et cetera waxuñu loolu je ne prononce pas par rapport à cela mais également on se lève et ñun en de femmes ñu naan les femmes qui sont en prison nit ñuy nàmpal wala ñu ëmb dañu ni loolu moom nañu xool bu baax. lan la ci Binta Samb waaw parce que lañ ko sàmm parce que la loi également dafa nekk ci loolu. voilà dañ ci profité pour waxaale ko. pour dégg ni ñun kii yëpp la ñuy déglu la protection des droits des femmes ci loolu la liggéey ak loolu nga ne. si noonu lañ koy def mais pour ce cas ci moom loolu tey jii moom on est là pour dénoncer ah en tout cas pas pour dénoncer mais pour savoir euh, quel est ce verdict rendu et quelle est la force de ce verdict qui a été rendu compte tenu de la loi qui est là la loi 2020-05 du 10 janvier 2020 et appeler maintenant à la dénonciation quand il y a des kii bu ñu peur de la dénonciation euh, et du témoignage ñu dira jërëjëf Euh, ci sa témoignage boobu nga xam ne def nga ko bien que nag léeg-léeg ñu sax proche carrément du du kii mais du jël triste parce que kële euh, nga xam ni doomam sa doom la fii ma xam nga droit témoigner ko parce que vous êtes moo tax nag ma defaale dégg si nag nga xam ne war nañ ko appliquer te wax tamit di ko seet madame la présidente des femmes enceintes ou allaitantes mm-hmm. waruñu on doit les protéger Tout à fait. Ils sont protégés. Ils sont protégés. Ça si elles sont coupables, mais qu'on trouve des, des moyens, des alternatives, en tout cas pour protéger euh, l'enfant la, la femme